jàppale euh, Sénégal Prod bu muy def ci toogu kaay. buñ dee ba ci kanam xale yi sax ci ay pono la ñuy toog di jàng. ah loolu neex na. waa li neex. ah kon rang. muy libaas. Gamer

mee ngi taxaw su lu ñuy amee alam bu am solo am cadre de vie bu mucc ayib parce que aussi gis nga loi contre euh, si si interdiction plastique bi ku siy gërëm na ko si jiital moom ndax bi muy combat xeex-xeex boobu yaakaar naa ñu bëri jóguñu woon pour xeex-xeex loolu léegi nag dañ ko siy gërëm di ko si sant parce que gis nañ ni loolu li muy nuire si askan bi dafa bëri te moom lépp luy combat lépp luy xeexam moom mooy jóg pour dimbali askan bi pour ñu am ay cadre de yu am solo yu métti ayib nii xool lii nu mu rafetee lépp si moom la jóge ak ay partenaire am aussi mi ngi koy wax sànq ne fondation gas mi koy jàppale jàppale bu am solo ak ñeneen ak ak ñeneen ak ñeneen li mu def nii def na ko CM ji de Caaroy kaw def na ko si ay euh, sànn course def na ko CFA def na ko feneen ak feneen ak feneen en tout cas nit ñu melni ñom lañu wara a jël comme référence ñom lañu wara xol ci ñom pour liggéey askan bi parce que moom ku jara jappalé la ku nguur gi wara gel des gess euh, ginaaw di ko diko di ko accompagner parce que ñi lañ soxla ci Sénégal li moy activisme li ñi def leen yëpp du activisme li moy activisme activisme moy liggéey poser des actes des actes concrets moom si loolu lay yëngu suba ak ngoon guddeeg bëccëg en tout cas dañ lay féliciter encore une fois te n'hésite même pas saa ñu soxlaa ñun dañuy ñëw accompagner la loolu mooy suñu warugar parce que fi nga taxawe nii foofu la ñu waroon taxawee jot mayewu ko waaye obligation la pour ñun ñu ànd ak yow. effectivement c'est que xam nga dañuy wax dafa am benn jëw bu ñuy jëwee sénégalais di leen wax ne ñoom de mën nañu defar. Nous mënuñu entretenir Nous défi la pour nous, défi pour Wa koñ aussi pour l'école, euh, pour nous diriger défi pour nous, pour pour nous. ak nous nous nous. nous xool ñu Nous Nous ne li ah, entretien euh, défi aussi les maires des communes pour aussi ndax ndax jang carte de vie la laaj carte de vie bi nek ni ni ni day favoriser xalé ñi am ay résultats yu baax en tout cas dañu nga leen di ñaanaat ñu entretenir li def ko comme ku nek sa sa bir kër garab yi ku nek def ko sa bop sa momel inshallah suñ ko defee rek déwén inshallah dina gëna mag gëna am taxaway gëna amul jëf waaw acte citoyen bu am solo bi dafa nek ni rek xex bo gis rek manam après dafa wara mujjé ci waxtan ndax mëno def sa giirug dund rek nga ni damay xex damay xex liñ doon xex tay yalla dimbal nañu tay président dégg na ministre yi dégg nañ ko ba tay fi nek ni loi bobu am nañ ko muy loi bu très plastique maintenant li ci moy le temps de l'action fexé def li nga xamanteni ni lañu doon kaas nan mbedd dafa tilim te tey jii li nga xamante ni moom moo doon indi tilim tilim yi ci mbedd yi état dindil nañu loolu kon ñun askan wi ñoo war a jóg delloo buum ca mboy mboy ga daay delloo si li fi ne nekkoon loolu moo tax ñuy def action citoyen yi di wan nit ñi ne pono bi nga xamante ni da nga koy jël taal ko pour génnee përëm bi dem jaayi ko di rey sa bopp mais di lor askan wi tamit ci xeetu pollution boo xamante ni tey képp ku amee asthmatique da ngay am problème boo lakkee pono kon tey pneu yi moo waral ñu dem génne ko ci biir géej gi yii ñu dem jëlee ko ci canalisation yi wan leen ne leen pneu kat foofu du place am na beneen sens de vie boo xamante ni mën na ko jox defar ko décorer ko ñëw indi ko ci école bi donc ñu yàlla dimbali ñu nag donc ñu am programme boo xamante ni dañ ko tuddee un million de pneus un million d'arbres loolu la ñu bëgg maanaam bu fekkente ni sax du ñu ñooy jëmbat un million yi mais fepp way jëmbat garab bo ñu woowee ñu def ko pono dinañ ko défar ba mu rafet def ko parce que dañu bëgg ñu xam ni liy réew mi ci ñun lay joggé kon nak sunu kilifa yi ñu nekk fepp li ñu mën ñom ñi ngi koy def waye ñun ñi nga xamanteni ni dëkk ci biir gox goxani ñun tamit war nañu wane sunu bop ba ku ñu gis xamni kat ñi ñu bëgg seen bop lañ ku ñu gis xamni ni ñu bëgg seen gox lañ mais ku ñu gis tamit da nga wara gis ku bëgg réewam

parents d'élèves yi ñoom ñoo ci jiitu parce que kenn ku ci nekk rek tey war nga jàpp ne lii tey sa biir kër la sax kon tey entretien boobu tey yow dala cee war kon ñi ngi ñaan rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy le directeur de l'école ak ñi fiy jàngalee ak xale yi vraiment ñu saytu ko ndax ñi ko fi def tey jii dañoo génne seen alal ñëw def ko fi mënoon nañ koo dem defi feneen kon tey cër bi ñu war a sante wala ñu sant partenaires yi ci jàpp wala ñu mel ni libaas te jàpp ci donc moy fonk garab yi ba bu ëllëgé bu libaas doxé ba ñëw fi gis né kat garab gi ma saxaloon kat vraiment ñing koy topoto bu baaxa baax kon yaakaar na ni li loolu rek mom mo ci am solo fexé ba ñun buñ fi déllu ci waatee parce que dinañ def ay revue donc chaque 3 mois dinañ ñëwaat xolaat état bi fu mu tollu quoi loolu mom dinañ ko def inshallah bëgg jappalé ci li ñuy def donc mën nga ñu wo ci 77 506. 86 34 77 506 86 34 Si vous tamit ñu la formation gratuite ni pouvez defaree pneu yi ni ñu koy peinturer ak ni koy installer nga tamit ci même numéro yi vous fay dara dañ formation yow yaay wut say pneu yi ak gox boko bëgg def wala école boko bëgg def ñun dinañ ñëw la formation gratuite do fay dara ñun suñu siège mi ngi nekk Sande Course mi ngi bokk ci Médina Gounass Médina Gounass mi ngi bokk ci Géejawaay donc yaakaar naa ni ku ñu woo rek incha allahu rabbi donc dinañ la defal formation gratuite doo fay dara.